وجهت وجهي لمن تكريم بانا بسال مولد من asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibe yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawul tuuba jëm si entretien wala maintenance wàccaa yu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armée lu baqiya yi taxawu personnel bi si wàllub social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bi si ndigalu sëriñ bu Bousso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibe yi nekk si diaspora bi rawatina waa di yónnee seen i barkeelu si transfert bancaire si compte association nationale Muqaddimatul Xidma Espagne ci Caixa Bank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Biki Swift Caixa Bank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 86 17 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii ci numéro yi ñu bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ ci liggéey bi. di nga feeñ ba faw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faw te yàggal fi sunu kilifa gii Cheikh mun taxam Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp jël ngeen jëf